alhamdulilah rabbil alamin lépp togg sëriñ bi taalibu bëgg sëriñ bi lool ñun saa su ne da ngeen di abonné wu suñu chaîne Nourou Darayni Vision activé cloche bi bu ko defee dara dootu leen raw ci liggéey bi jërëjëf bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuuba kaay leen ñu teewlu wile way murid yi ndaxte wile way ki ñu ci way daa jëra way boo ko xamul moo di kafe kay leen ñu teewlu wile way murid yi ndaxte wile way yi ñu ci way daa jëre way boo ko xamul moo di kafe kafe di dëggal ak murid day yokk pas-pasu murid di jàppandal bëggu murid fa Bàmba nañ fonk kafe kafe di dëggal ak murid day yokk pas-pasu murid di jàppandal bëggu murid fa Bàmba nañ fonk kafe kafe di dëggal ak murid day yokk pas-pasu murid di jàppandal bëggu murid fa Bàmba nañ fonk kafe ku di murit te làq ngor sant ko rek moo ko war ndax mooy ki tax ba ñuy sawar sunu sa te mooy kafe ku di murit te làq ngor sant ko rek moo ko war ndax mooy ki tax ba ñuy sawar sunu sëriñ te mooy kafe ku bàkki moo ko fàgguloon ci ñibbi sib ba woon ku bàkki moo ko fàggu woon ci ñibbi sib ba woon andil ko mag nem fi ba woon ba fim ne tey ñéppay kafe ku bàkki moo ko fàggu woon ci ñibbi sib tukkim ba woon andil ko mag fi ba woon ba fim ne tey ñéppay kafe kaaf nga xamal ni moo di kunte faaga yit mooy fayakuuna lambona sekre masun kun fayakun moy kafe kafga khamal ni modi kun tefaga yid moy fayakun lambona sekre masun kun fayakun moy kafe fuñuy daje na fay bari bun ko amul nan ko wari kun man di jëm bum ñu sori murid da fay xir ci kafe fuñuy daje na fay bari bun ko amul nan ko wari kun man di jëm bum ñu sori murid da fay xir ci kafe ku am murid fanan ba xey bu mu ko wan gannaaw di wey na xaar ba ko doore wey murid du wan gannaaw kafe ku am murit fa naan ba tey bu ma ko wan gannaaw di wey na xaar ba naan ko dóore wey murit du wan gannaaw ka fee fu ñu ko fekk bom ñu raw te fum ñu fekk bom ñu raw subaaki ngoon daa war di daw ci biir murit yi moom ka fee fu ñu ko fekk bom ñu raw te fum ñu fekk bom ñu raw

فجاجو موتي جنا غاو دفحن وجل بنيما واو بولين كو تگلك سخو مو غاني وولو لين كافي فجاجو موتي جنا غاو دفحن وجل بنيما واو bu leen ko tëkkaleeg sa xaw moo gaañi wóolu leen ka fee bëgg a yegg fa mu jëm ci yoonu yàlla te du am benn fakastal wax ko muy jaamu bóor di naan ka fee ku bëgg a yegg fa mu jëm ci yoonu yàlla te du am benn fakastal wax ko moom muy jaamu buur di naan ka fee fexeel ba yow mi koy defar moo xam jigéen nga mbaate góor nga sol lu jot te làbbu weer kon dee nga am yi wi kafe fexeel ba yow mi koy defar moo xam jigéen nga mbaati góor nga sol lu jot te làbbu wér kon dee nga am yi wi kafe xel ba yow mi koy defar moo xam jigéen nga mbaati góor nga sol lu jot te làbbu wér kon dee nga am yi wi kafe tuubaa de ndox ma ko man nga ko seggee mooy gën ndax kafe tuubaa li mu man moom yemu ceeg ganeen kafe tuuba de ndox ma ku ko man nga di ko seggee mooy li gën ndax kafe tuuba li mu man moom yu mu ceeg ganeen kafe waa ju ko naan du dem safaan ba bay na aljana safaan xaadiri saa tijaan li gën ci ñoom mooy naan ka waa ju ko naan du dem safaan ba na aljana ak safaan xaadiri saa sileeg tijaan li gën ci ñoom fa sa yam ndax lima don jëm farna am ta moo di way ko moom kafe alhamdulillahi xadimi ndéem saa way fi la fasayam ndax lima don jëm farna am ta moo di way ko moom kafe yàlla nu mam si Ibra defal nga ne lu jegi xel jaaraama mom mi lamp fal ngir mo nu sopp loo kafe yàlla nu mam si Ibra defal nga ne lu jegi xel jaaraama mom mi lamp fal ngir mo nu sopp loo kafe yàlla na Seexu Ibra Faal fi Seexu Jëmb fal ak Seexu muntakhal Kamal ñu gën di wér di naan kafe de yàlla na seyxu jëmbu fa yàlla na seyxu ibra faal yàggal fi seyxu jëmbu faal ak seyxu muntaxal kamal ñuy gën di wér di naan ka fee yow seex mi tax ma way ka fee yàlla bu say mbir di jafe yàlla nga am yiwee ka fee yaa képp kuy safoo ka fee yow seex mi tax ma way ka